jaajëf tey jaajëf tey sama gaay man la Mister Shake depuis Brooklyn New York tey nag dama ñëw defal leen benn vidéo ci Gaston Mbengue faram-fàcce Gaston Mbengue combat politique bi nga xam ne moom la def waxoon naa leen ko fii ne leen Gaston Mbengue combat politique la def waaye dafa dem ci Babacar Fall faram-fàcce Youssou Ndour Babacar Fall laaj ko waaye yow ñaata la Macky Sall Sall ñaata la la jox yow da ne. Macky Sall mom nga tijji combat bi mune mune Macky Sall joxuko ko dara ñu dem ba ci biir mune non non Macky Sall après la jox mais vraiment Gaston kan la yap Gaston dafa yakane ñun ay ngaak lañu wala wala lan la parce que tamit mëno wax ne lamb bi def nga ci 200 millions né nga li nga am ci recette matul 40 millions kon da nga bëgg wax da yo perte waye né nga yow da nga am ay nit ño xam dañ seen budget communication xaw ma ci la ñu profité pour pour ñëw jox la mais Gaston Mbengue boo waxee ne da nga def làmb bi te Macky Sall jox la xaalis ñun duñ ko gëm yaa ngi may dégg yow sa bopp ne nga Babacar Fall laaj la nga ne yow làmb bi moo tax fi mu nekk nii coow li fi amoon xeex yi fi amoon yëpp jeex yow yaa fay lakk ji te yow yaa ëpp njëriñ ñi nga xam ne dañ fiy nekk di def ay meeting pour Macky Sall mais vraiment Gaston Gaston Baba Krafal, attention attention attention parce que bu fi wax waxu troisième mandat né nga le troisième mandat bu ko Macky Sall waxé dara du am ci dëkk bi Gaston dañu jóge ci ay ay yu que ci ay problème yu mais vraiment li mo tax Sénégal du dem ndax yow bu dañu wara alors que xalé yi ñu ngi tok amuñu ñu lek amuñu ñu naan ñu leen di jéma divertir man fi mo taxone ma génn sama ma ne làmbu Gaston Mbengue bi làngu politique la xaw ma ndax loolu moo tax yow ak sa structure Gaston production iTélé xaw ma ak ban structure moo tax ngeen mer daal di ma boole YouTube man Mister Shake youtubeur ngeen fexe ba sama benn vidéo sama live bu ma def tuddee ko Eumeu Sène Lac de Guiers yow nga boole mag YouTube sa structure boole mag YouTube ngeen dama sàcc sa vidéo te yàlla xam ne ne wanewuma sa combat sama vidéo bu du 4 avril naa leen bind naa sa représentant bu ñuy tuddee Mouhamed Soumaré Mouhamed Soumaré mu ne ma il faut nga wax ak doomu Gaston Makan Meng Makan Meng bind naa ko email ma ne leen bàyyi leen tooñ Gaston man munoo tëj sama chaîne YouTube te même boo ko tëjee man dam dama lay bàyyi yàlla xam nga li nga def nii dama lay bàyyi yàlla parce que bu dee dama wax ak yow nga bañ ma faale ngeen ne da ngeen may YouTube man am naa Instagram am naa Facebook te mënu leen téy sama làmmiñ bu dee critique yi may critique Macky Sall di wax ne làmb yi ngeen di jéem a organiser pour xale yi fàtte li fi jot a xew da di nax seen bopp loolu laa la wax Gaston yow nag bu fekkee ne da nga toog ci télé bi nga ne Macky Sall joxu la xaalis loolu loolu mënoo ñu nax Babacar Fall nag journaliste bu aay la parce que topp nal topp action bi toppal action bi nga dem ba ci biir nga ne après Macky Sall dina la jox. xam nga ñun nag loolu la ñu loolu la ñu bëgg xam fan la ko Macky Sall teg Macky Sall buur Sénégal ba nga xam ne dafa yor a xaalis rek di tibb ñi ko ñi ko jàppale mu leen di jox xale yi toog amuñu luñ liggéey duñ leen jox. vraiment faram-fàcce bi gars yi dama leen di encouragé ngeen seetaan ko boo leen ko seetaanee da ngay ruus Gaston di wax ba ba saway na ko yow ba ngay dóor marto boobu marto xewagul moom mu ne Youssou Ndour mu ne ko yow sa patron Youssou Ndour ba muy dóo moom it day dóor marto nee na ñoom ñëpp dañoo dóor marto bu am te moom nag dóor marto moom nee na day dóor marto waaye njëriñu dóor marto <laughs> vraiment gisagul njëriñ bi mais la moo ci yoonu Youssou Ndour buñ ne nii nga ni Youssou Ndour Youssou Ndour samay combat yu bëri Youssou Ndour moo ko bëgg a yàq xam nga moo tax ma bàyyi leen fi ma teg leen fi ñu ñukk dem de télé dem de stv yi 2STV yi mooy télé moo leen ëpp mais vraiment yow sa bopp nga toog ngeen ne da ngeen di door marto ah yow nga ne da ngay dóor matto Youssou Ndour day dóor matto mais xëy na lii moo tax Sénégal du dem lii moo tax xale yi dañuy toog di di bëgg fonde sax mënuñu ko am waaw yow nag yow nag nee nga mag sàll day am bu waxee troisième mandat dara du ko ci fekk ah loolu moo tax Sénégal du dem nit ñi dañuy toog ñeen dañoo bëgg jàmm am ci réew mi waaye yéen yéen arrogance bi ngeen àndal ah,

ñun li ñuy wax wax nañ ko ba pare <laughs> c'est trop tard ba balaa nga doon tëj tëj euh, chaîne YouTube bi YouTube bi wala ngeen koy jéem a tëj day d'ailleurs sax da ko mënul tëj mais c'est trop ndax ñu suñu message jàllale nañ ko ba pare yàgg nañu yeete boobu xale yi génn ñu yee xale yi ci wax leen ne il faut ngeen fipp waaye waxuñu leen bu leen taal kër waxuñu leen ñu taal kër waxuñu leen ñu ñu ñu ñu taal Auchan waxuñu leen ñu ñu euh, taal yenn yenn kii mais mais ñun li ñu leen di wax rek mooy Gaston li xew nii na doon avertissement ci yéen ñun suñu message jàll nañ ko pare fi mu toog dañuy toog di seetaan xale yi xam nañu kenn mënutu leen nax xam nga Macky Sall li ngeen ko war a digal mooy bu mu wax di wax troisième mandat li ngeen war a def mooy ngeen defar élection yu baax ngeen bàyyi nit ñi ngeen di tëj juge baa ngi nii tey génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm lii day wane ne àdduna amul solo yàgg-yàgg ñëpp dañuy dee juga kon nag Sénégal bu mu tàkk Côte d'Ivoire Charles Blay Goudé ay ay euh, président Gbagbo di di di di wax ah. pourtant bu ko Côte d'Ivoire ah, wax dañuy na euh, dëkk bi xam nga guerre civile moo fa kon ñun guerre civile am Sénégal une affaire ethnie am Sénégal une affaire clan démocratie la démocratie la wax Babacar Fall def na job bu rafet TFM def nañ job bu bu rafet parce que teg nañu euh, benn euh, audio Macky Sall muy wax ne bu jëlee pouvoir bi ah, juróomi at rek lay def noonu la émission bi commencé mu wax ne moom dafa bëgg démocratie yokku ci réew mi vraiment bu dee nag loolu moo tax nga mere Babacar Fall di ko attaqué di ko wax yow génneel ñaata waxal ñaata ngay jox sa sa jabar dépense Babacar faa li bi laaj dafa yomb ñaata nga fay Eumeu seen ñaata nga fay la de mais loolu transparence la ñun war nañ ko xam Sadio Mané li muy faye ko war nañ dañ koy xam ñeneen dañ koy xam ah mais yéen da di da ngeen di rek ci ay affaire yu lëndëm lan moo nekk ci nga nga defar combat nga mbañ wax ne nit ñi lii laa fay mbër bi wala lii fay mbër bi parce que bu boobaa dañ lay laaj fal nga jëlee xaalis bi est-ce que Macky Sall moo la ko jox xam nga Macky Sall nag bu dee def la jox xaalis yaakaar ne yow nga yaakaar ne fu mu nekk yaa fay lakk bi yow loolu nga wax mu ngi naan la il faut pas être prétentieux Babacar Fall mi ngi naan la il faut pas être prétentieux bu fekkee ne yow danga yaakaar ne xeex bi amoon yow yaa ko fay fayloo ko Serigne Mountakha moo ko fay Ousmane Sonko moo ko fay Gaston Mbengue tuuti nga ci fay xeex boo xam ne ay lu mat fukki xale ak ak ak ak juróom dee nañ ci ñi gaañu ci policiers yi gaañu ci yow nga yaakaar ne yow yaa fay lakk ju alors que sëñ Mountakha moo def ay démarches xalif généraux yi def seeni démarches yenn yi boo koy def vraiment Gaston euh, war nga xoolaat sa bopp quoi war nga xoolaat sa bopp te ngeen bàyyi Macky Sall bi nga xam ne yéen a koy jàpp di ko jay ngeen war ko wax dëgg waru leen ko wax dëgg voilà man la Mister Shake gars yi li benn réaction rek bu ma def laaj leen partager leen pour wax leen ne ñun mënuñ leen ñu tere wax sama chaîne YouTube ba léegi mi ngi fonctionné te ñun ñun nee naa la ñun pare nañu sax ñun suñu mission pare nañu ñun dañuy dem liggéey incha allah YouTube sax xëy na après nu ñuy demee dootul la ñu gis lu yàgg waaw mais ñun dañuy wax rek ne Sénégal moo ñu tax a jóg Macky Sall yéenewuñ ko dara lu bon lu ñu koy wax rek mooy ne eggali ñetti at yi ko dese milliards yi mu wax na ko na ko def 2024 mu dem bu mu wax troisième mandat jaajëf yi laaj leen partagé leen Mister Shake ngeen am foofu merci.